waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Lu Xew TV Lu Xew TV bëgg naa ngi jàllale benn live pour mun wër àdduna léegi léegi dama ko soxla pour Bougane Gueye Dany laa bëgg a waxal Bougane comme ñu félicité Bougane Bougane ku jar félicité yëpp ñoo war a def live félicité Bougane Bougane ni mu sonnee ci maanaam lii fi nekk nii di yàq Sénégal mu sonn ci lakk ci gaz wàllam def ci lu ne te bu ko neexoon yooyu du ko ci fekk su ko neexoon. mu dem ànd yeeg gouvernement bi te boobaa ñëpp xam ne loolu mooy gën a ak moom te boobaa intérêt boo ko neexoon mu jiital ko fa waaye dafa ñëw pour Sénégal sensé pour Sénégal beneen Sénégala beneen Sénégalam beneen xarkan mu Sénégalam waaye gis nañ ne am na ci ay gox yoo xam ne bu ñëpp meloon ni moom rek maam gouvernement bi nekk dañuy abal kon Bougane Gueye ñu ngi lay félicité xam ni nga bëgg sa réew ni nga gëme sa réew ni nga ci sonnee ñëpp gis nañ ko Sénégal yëpp gis nañ sa taxawaay ñu ngi lay félicité bu di la encouragé wu bul découragé wu bul découragé wu gën a la jàpp sénégal yëpp ànd ak yow ci xeex bi te xeex bi day doog a commencé de day doog a commencé xeex bi day doog a commencé pour kii abal ñu te dinañu abal nag moom incha allah dinañu abal ndax bu fekkee li muy wax jëfe na ko cinq yi moom ku ci yàlla yañu yàlla may jàmm ñëpp fekk ko te tal ko rek mu abal ñu xo ñu xoolaat beneen Sénégal ku mel ni Youssou Ndour nag moom du référence damay dégg ñu ay Séné Youssou Ndour Sénégal déedéet. du référence Sénégal intérêt moo ko tax a jóg Youssou Ndour intérêt moo ko tax a jóg waaye lu askan wi moo ko tax a jóg Bougane Gueye Dany ku ko xam xam ne kii la Sénégal tax a jóg moo bëgg yóbbu Sénégal feneen waaye pas Youssou Ndour Youssou Ndour du référence Sénégal loolu laa xam ko booy wut da ngay wut référence ku mel ni euh, Bougane Gueye Dany kooku mooy référence jamono yi Sénégal presse am bi kooku mooy référence waaye pas Youssou Ndour nga xam ne télé bi dafa far ba Sénégal yëpp xam ko xam nga nit mënta ànd ak ki président bi fi ne moom sa télé moom sa média nga ne da lay xeex déedéet mënta ne tëddeewul njaaxaanaay TFM tëddeewul njaaxaanaay waaw loolu laa bëgg ngeen xam ko yéen Sénégal Bougane Gueye ñoo ngi lay bu baax di la encouragé wu te nga xam ne jàppal te live bi bëgg naa képp koo seetaan nga partagé ko ba mu dem ci Bougane loolu bëgg naa xam ne seetaan boobu rek bëgg naa boo seetaan partagé ko pour rek waaw ñëpp partagé ko bu Bougane Gueye waaw loolu rek laay ñaax Sénégalais te Sénégalais yëpp ñu gën a jàppale Bougane gën koo soutenir ci li xeex bi muy xeex nii nga xam ne xeex bi day doo commencé waaw bëggoon naa nag maanaam dañ bañ a dañ bañ a bàyyi xel TFM TFM daal képp koo xam ne mën nga koo boycotté nga boycotté ko doo ko seetaan moom daal moom licence boobu daal bëgg naa nguur àdduna ndax Youssou Ndour intérêt nag moo ko tax a jóg Sénégal yi taxul ko jóg waaw Lu Xew TV bëgg naa ngeen jàlleel ma live ba mu mën a àdduna